dégg naa sa version dafa dul teggin rek ma wax fu dëgg fees mais xam naa la bu baax a baax bi ma woowee rek si laa jënd guro pour maag ñu dem ko baanu ko raamal ko dama la ko ñaan ci weeru koor gi ñu nekk weeru jéggale weeru yërmande sama patron instant bi dafa ma woo téléphone nee na ma li may tardé dafa bari trop fan yi loolu tax na ne ñàkk naa sama liggéey te gis naa ne kër gi dama fiy déranger dama bëggoon ma bàyyi ma de toog sama kër yaay soo ma soxlaa xaaral ma bëggee gis di ma gis. te su ma ñàkkee sama liggéey te yow amoo foo jafandu yooyu dama lay gën a teg coono àdduna yàlla du tëj buntu tëj fenêtre certes ñàkk nga sa liggéey waaye euh, ubbil na ma leneen ndax fi may waxe yow nii ndax nogoy suñu dëkkandoo taxi ba mu ko doon siiru jox na ma ko mu ne ma chauffeur plein laa léegi alhamdulilah beneen bi mooy wàllu génn kër gi bu ko xalaat ci sa bul fàtte yaa ma waxoon fii nga bëgg a seewe fii ngay deewe kàddu yooyu na la tënk ba bul xalaatati lool dégg la waykat ba waxoon ni kuy sëy day sol carax su fa amee doom am fandam ndam mu mën a koketu kanta mbay nag ñu mu nekk di def yëpp naan day daanu yeesu nii la mësa mel bi ñuy xale saa suy commencé xeex di def yi moom la concerne yéreem saa su ko bëggee mu jël ko man nag ma fi bëgg yàgg kooru daaw ba ko ren ma ne fi te lekk ak naan indiwuma fi xar ma jug léegi di jënd sama bopp si bi muy teel yaay baal ma àkk bu sànq li fi jot a jaar yow loo may baaloo ak guro sa juróom-ñaari goro yi <laughs> baalu àq bi de lenn rek ay mën a am liggéey bi moom day dàq. waaw moom sax dañ ko dàq liggéey. ndox yàlla loolu baax na ci dàq boobu kontaan naa ci torop mbay tolloon naa la de. mag muy nelaw nga yeeku fexeel ba li nga ma soxlaa sama intérêt na ci biir. mbay xam nga ne ubbi na yow kër yi ma nekk nii yaa ma fi indi mhm. te it dama am njaboot dëkk ba te fan yëpp ñu may woo téléphone te mbay dama war a yónnee ñaw ñaw xale yi si pour Korité yi yónnee ay ginaar ak ay lujum pour ñu Korité. te boobu ba léegi mbay man amaguma CDI yi bu baax fii te mbay boobu ba léegi ma fi nekkee ba léegi sàcc génn sàcc dugg xoteer yi ma takk kër gi macha allah léegi dafa am avancement kër gi léegi lépp lépp impact kon donc man jot na man man mbay ma am salaire bu baax di ko jox waa dëkk ba ñëpp may woo fenn yii yëpp. ñaareel kii dafa tollu diggante lay dugg néegam di ko bale ba mu set di raxas di fomp di marché nduggi mais yaay bon bi loolu pour moom la. waxe bon bi laa bëgg ñu teg ko ci suuf dooleem ju bari building ci sama kaw sama loxo ne karaj nii mënatumaa di mënatumaa dikk man na koy raxase kër gi ba mu set di fomp di nettoyer. baax na dina ko def. yow yëpp ma mënut a nga bàyyi buntu ba Yek escalier yi traversé salle bi dugg sama biir nekk fekk mag muy nelaw nga yee ko ma yaakaar ne lu ne nga may wax nga naan ma CD yi. waaw mu ne la ah CD yi nga bëgg. waaw. yow loo fi ñëwoon phase test nga fi nekkoon. Oh, dàqul ma yow may si loolu. Ah. parce que man sama objectif dama ko entéré. salaat sama objectif bi. sa objectif. waaw kooru daaw nga fi ñëw. waaw ren fekk la fi. waaw déwén nañ lay valider. waaye damaa bëgg nga dem ca marché ba jënd fa gën a kuur gu rëy indi teg ko ñu dellu cosaan kër gi ba ma fi duggee ba tey lekkuma laax. lekkuma cere jox ko ko moom mii muy soq a kawal di toog di mooñ ak a araw waaw eh, jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal sa gura gi jëlal yaay ñaanal ma si sama liggéey bu bees bi may wax samay waxi dam sama loxo bu wekkee ko bu karaju nga may wax waxee tànk si mané nga jall mën rek la te bul fàtte gën ak kóor gi. féete wol non rek ngay yolos yolos yow kenn raw li ngay mos li ma lay mosal nga mosal ci wa dëkk ba yow da nga fogg ni li nga nekk fi yëpp man yëguma ko léeg-léeg nga gis néeg daali daal di nga dugg ci biir tal clip di seetaan lool rôle gardien may wax nga né téré yi nga tak nga né téré yi nga tak moo tax sàcc dugul génnul <laughs> mbay nag bàq nga njaag nak sa kaw la koy tekké may tekki yow man ni jaaxaluma ma gis naa bu né bu ma ko tekkee sek